waaw xam nga cewal suuf euh, cosaan la ci euh, dëkk bi wala boog ci Sénégal mais c'est crois kenn ku nekk euh, ci localité bi nga nekk yow yaa war a jël say matuwaay ba nga xam ne nit ñi mën nañu bañ a génn di coow ci suuf toujours parce que toujours li may wax nit ñi mooy ak acte trois de la décentralisation bi nga xam ne président def na ko lu yàggul kenn ku nekk sa développement localité yow yaa ko yor yow yaay xool nan ngay def ba am ay partenaire pour mun a euh, liggéey sa dëkk mais nag euh, toujours Olof Ndiaye day wax ne lépp ñëpp du lenu kenn c'est-à-dire ñun dàquñu benn projet mais projet yi ni ñuy ñëwee ci dëkk bi loolu rek la nit ñi di leerlu nan lay deme ak nan lañ koy doxalee je crois que daal euh, loolu mooy faral di indi coow li ñun depuis 2014 maa ngi ciy tenir loo nit ñi ñu def ci attention parce que doxalin bi ñu gisoon suñu xel ñaawoon na trop donte jaar na yoon jaarul yoon mais nit ñi dañu amuloon information loolu moo mooy gën a indi daal coow lu bëri. xam nga bu ñu bu ñu xëccee projet lu mel nii sax yi fi am te danaa ci delluwaat tuuti dëkk bi ñu ngi coow surface yi nga xam ne dañ leen di jox euh, euh, euh, étranger yi nga xam ne dañ fiy ñëw mais ñi nga xam ne dañu dëkk ci dëkk bi booy xool li ñuy def sax moo gën garaaw ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biti. parce que projet yi fi ñëw en dañuy pare demaat bàyyaat ñu ak suñu suuf. mais ñi fi dëkk ñu affecté leen lo xamné plus de 10 hectares la ci all bi te exploité wuñ ko dafa bari ñom dañu waron régler lool d'abord avant ñuy régler étranger yi nga xamné dañ fi ñëw étranger yi liggéey rek dem képp ko xamné fo mëna joggé am sa projet ñëw fii comme mëna la citer pour dimel pour dimel projet bo xamné xam fi ñëw mëna la citer comme par exemple euh, agropole bi nga xamné mu ngi ñëw yoy yëpp ay njëriñ la yo xamné mëna amal gox bi njëriñ parce que ay projet yo xamné ben mu dox wala mu baña dox borom dem bokkul ak ñi nga xam ne nag dañ fi dëkk ut seen utal suuf si këyit tëdd ci duñ ko exploite wala dañ jékki-jékki rek di xatal dëkk bi yooyu tamit dañ ci dañ ci war a liggéey bu baax a baax maanaam doomu dëkk bi laay waxal doomu commune Nguéniène am na ci ñoo xam ni même ñu ngi ci langue politique bi am ñu nekkul ci langue politique bi ñu ngi surface bu bari ci àll bi nañ ko exploité wala ñu bàyyeeku ko nit ñi ñu dem sami ba keroog ñu am ay moyens pour mun ko exploité loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax parce que Maguette Ndao bu demee ba ñëwaat nekk maire Maguette sama papa sama xarit la sama dëkkandoo la du ñu ay camarades de parti nag parce que ñu parti moom socialiste la man APR la mais ginnaaw bi fi Ousmane Tanor jógee euh, wure bi dal ah ku ne xam nga sa morom <laughs> ba mu soxlaa tamit seet si na ma seeti na ñeneen mais en tout cas def nañ ci ay jéego daal ba ba ba ba pouvoir bi ñëwaat ci loxoom euh, te loolu c'est crois que dafa am lu muy firndeel mooy euh, commune Nguéniène ku ko xam xam ne cent pour cent ay socialiste la ñu woon Ousmane Tanor bi mu fi nekkee yàlla jox ko cër nit ñi nekkatuñu woon ay socialiste mais ay tanoriste lañu woon euh, ñun liggéeyoon nañ ba am résultat bu ñu am mais nag bon ak ak politique bi nu mu demee pour nit ñi xam li ñu liggéey xawoon na jafe parce que Ousmane moo taxoon ñun ay ndaw la ñu nekk ci ginnaawam ñu def résultat bu bu mucc ayib toog ci nit ñi nag mënuñ koon xam mais c'est crois que boo xoolee carte bi ni mu ne woo moom bu mu fi jógee. war nañ am lecture bo xamné ne nañ né du socialiste mo nek ngéñal légui mais APR mom mo nek ngéñal wa xam nga buma taxawé né ne la bëgguma dara lool mom c'est crois que euh, kilifa du waxé non té borom jabot du waxé non mais lima la bëgg xamal moy xeyna seen xel sama xarit la sama camarade de parti la euh, Alpha sambu sama grand la sama lepp la ñoo bokk parti bi di liggéey mais man damay liggéey ci discipline parti donte nak ñun xamanté nañ suñu biir parce que bo né li la nit ñi ne li nga mo gën xamanté nañu yeen journalistes yi xam ngeen li fi xew euh, souvent damay wax né seen liggéey il faut ngeen wax nañu li xew parce que yakarna né 2014 ba légui euh, xam ngeen li xew ci euh, ci ci commune Nguéniène il faut ngeen wax ko nit ñi d'abord ñu xam ko parce que amna ño xamné ñu ngi fi di liggéeyal président ñu ngi fi di liggéeyal seen gox ñu ngi fi di génne nit ñi ci ay situation yo xamné situation yi day war la mais tay c'est croire que ñom buñ taxé day wax né dañu bëgg man taxaw yegguma foofu ci li ma yegg mooy situation bi ñu nekk d'abord nan lañ def ba génn ci loolu commune Nguéniène xam ne nit ñi xam ne ay socialiste la ñu woon parce que balaa ngay toog ne dama bëgg Nguéniène est-ce que liggéey nga lu tax nga naan damay bëgg Nguéniène c'est crois que daal population bi ñoom ñooy joxe dëkk bi mais du ñun ñooy wax ne ñun lay doon mu nekk ñun non du ma la ne bëgg naa wala bëgguma li ma lay wax mooy ñun dañuy liggéey ci discipline parti bu soobee yàlla li ci kanam raw lu bët bu ñu demee ñëw danañ xam li xew ci terrain bi lan lay doon bu ñu ngemboo ba dugg ci làmb ji ba desu tax bëre bu ñu simee ko ku nekk dana dey sa morom ne ko te maa may ma jàll. ñoom naa li ma leen di li ma leen di ñaan bu fekkee ne bëgg nañ li fi nekk mu kawe seen njot nañu jaar fi ñu war a jaar bu ñu si dëgg dugg ci dëkk bi nañu xool fi ñu war a teg ñu teg ko fa. parce que bu ñu ko tegul fu ñu ko war a teg dana doon li nga liggéey ba tey ko sa loxo war a dem mu daanu tasaaroo. en tout cas bu ñu ko tegee fi ñu ko war a teg danañ ko parce que euh, Omar Youm xam na li fi xew 2014 ñëw na fi liggéey nañu mu ngi suivre xam na liy dox c'est crois que man duma def kenn dara duma wax kenn dara ñun ñëpp ñu ngi bokk di liggéey quel que soit muy euh, muy muy Simon Sarr muy muy madame Sène muy Alpha Samb en tout cas ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey mais kenn ku nekk xam nga sa morom bu ñu toogee danañ xam li ñuy wax euh, li nga mom mom c'est croix que yaakaar naa ne bu ñu la bëggé jox ciir dañ la koy dañ la koy dañ la koy delloo. déedéet du du du man ma mom xam nga mun na mom Alpha Sam mun na mom euh, si Simon Simon sar mun na mom keneen mun na mom mais en tout cas kenn ku nek ciiram parce que nit ñi kenn momut len nit ñi ki xam moy ki gis ki len di jappalé ki len yëg fa euh, am amna yoo xam nit ñi sóoraale wuñu man lima def c'est croix que ñepp xam nañu ko ñu bari xam nañ ko duñ ko lam lamé bu ñu arrière ci ginnaaw tuuti boo demoon zone nord euh, rafle woon nañu ndox Sekuraak ba ma fa jaaree bëri na ci ay fontaine yoo xam ne dañ leen arrêté pendant six mois am na ay témoins yu bëri ma génne sama xaalis fay leen pour ñoom ñu dem continuer am ndox euh, beneen bi mooy euh, jeunesse su commune Nguéniène maa ngi jëflante ak ñoom bu baax a baax chaque nawetaan danañu ànd liggéey liggéey bu mucc ayib ren nag ak Covid bi nga xam ne dafa am mu mu bloqué secteur yëpp li njëkk a def mooy dañu njëkk a def embellissement ma woo leen ci taaral dëkk bi environnement bi biñ jógee ci loolu ma gis gis ne tey jamono dafa changé ñu def restez chez vous te loolu la lay dimbali fow nga am xam-xam ci wàllum euh, ordinateur warum informatique ma ne kon pourquoi pas du ma fexe ba def vacance mémoriques fii ci vi mo fii fi Ndianda loolu ma xeex ci ba am ay partenariat actuellement nii première asbach ñu ngi ak cent élèves yoo xam ne fii ak le deux euh, septembre incha allah bëgg nañu jox leen seen i lijaasa loolu ñu ngi ci loolu beneen bi tamit femmes yi ñu ngi leen di jàppale accompagner ci côté bu nekk yaakaar naa ne commune Nguéniène mënu ma toog fi sax parce am na yoo xam ne boo koy wax nit ñi dañu naan xëy na pour wax ko moo tax nga koy jëf doonu ma koo xam ni damay toog ne def naa lii wala def naa la mais ku laaj jeunesse su maire bu commune nga ñen dañ la wax man may kan nga laaj maire yi nga xamne ñu ngi di dem ci marché yi di ñew dañ la wax man may kan mëno di nek fi di di def lu muccu ayib ay doomu aadama bayyi seen kër bayyi leen nu nek di and ak yow di liggéey guddé ak bëccëg nit ñi ñew ne yow lañ soxla nga ne du man loolu kenn duko def <laughs> loolu beew sax lay doon loolu day doon lo xamne ne xeetu beew lay doon en tout cas buñ ma buñ ma doylo ah ma talal yalla suñu borom ma talal ko loxo mais du forcing mbir mi du forcing affaire da ngay liggéey rek ba ñu ne yow la mu doon yow bu dul yow tamit nga xamne du man rek buñ ma tànnee lolou koy amul sax ñaar buñ ma tané mom inshallah man amuma ben problème pour euh, taxaw euh, yeggale mébét bi mais nak du ko forcer ken euh, du du du situation bo xamné ne day obligé wala yu démé nonan damay xamné ne mun na doon man mun na doon kenen mun na doon kenen ci discipline parti rek la démé wa Omar yum nak c'est quoi que yakarna né ne ku ko ŋaññi sa mbiru bop la mais bu ci bilan la ci bilan politique man d'accord ma ku ŋaññi Omar yum ci département de Mbour. kenn nag terewul kenn mu wax ni nga gisee mais man Omar Youm d'accord ma ko koy ŋaññi ci département de Mbour parce que ñun nag ay ndaw ko département bi lañ 2014 APR moo àndoon fii ci département de Mbour Youm moo coordonné woon moo moo moo éliminé socialiste département de Mbour 2014 ñëw Caajaay fekk mu nekk PDS mu dóor Caajaay ku dem Mbour gis ne ñu ngi liggéey département de mbur ñu ngi koy liggéey ñi nga xam ne euh, euh, président dënk na leen département de li ñu mën ñu ngi koy def